taxaw takku tembe taxaw seetlu. waaw donc internet yi di seetaan euh, Sénégal TV euh, comme ni ñu leen koy waxee saay su nekk rek nee naa leen taxaw seetlu euh, thème lay waxtaanee thème bi nag bu ñu ko indee ay kàngam la ñu siy oo ñu waxtaane loolu noonu tey nag kàngam bi nga xamante ne nii moom moo ñëw ci deuxième partie bi ñu ngi koy wax Lamine Fane miin ngeen ko moom moo nekk nii si sama ndeyjoor ki nga xamante ne ni moom mooy Mouhamadou Samb nekk si sama càmmañ euh, ñu ne la religion est l'opium du peuple d'accorduma ci loolu parce que bugguma fekkee fu ñuy suuxalee l'islam foo xamante ne dañuy wax ne bu leen gëmati seen diine gëm leen leneen waaye nag du ma nangu tamit foo xamante ne ni dañuy jël ay faux def leen ay vrai loolu tamit du ma ko nangu ana lan nga jànge loolu nga xamante ne la waa wax si loolu noonu jërëjëf Ousmane ñoo ngi am mbégte bu baax a baax si plateau bi. jërëjëf ñëw di partager li nga xamante ne moom la ñu yàlla dénk si lu tuuti. jërëjëf ak nga xamante ne ñooy mbokku internet yi nga xamante ne ñooy suivre émission bi di taxaw seetlu. Mhm. Euh, ni nga xamante ne jot naa dégg si sa chroniqueur yi nga xamante ne jaar nañ fi jot nañ développé lu am solo tey Sénégal suñu Sénégal ñoo ko bokk mais malheureusement ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a jàppale population bi ñoom si boppam ñoom jëkk am échec parce que gis nga nit tey bu fekkente ne yow da war a doon koo xamante ne éducateur nga war a doon da nga war a yor benn euh, ful boo xamante ne muy groupe boo xamante ne tey ñoom ñëpp dañ lay bàyyi xel yow si sa bopp war nga pare sa bopp mais malheureusement loolu amul si ñi nga xamante ne moom mooy yenn si sëriñ yi du ñu wax sëriñ yëpp mais ñenn ñi la ñuy wax kon tey bu ñu demee ba gis li nga xamante ne mooy ñu war a topp sëriñ yi si ndigal euh, dem ba sëriñ bi di wax ñu koy contre parce que tamit am na rëy foo xamante ne teg nañ ko fa tey bu ñu xoolee Sénégal euh, toujours dama koy faral di wax suñu politique dafa bon benn côté euh, bu njëkk ba dañoo ragaloon sëriñ lool muy côté politique yi parce que ku xamoon jamono sengoor du lu ñu fekkee mais lu ñu dégg la mook sëñ Fallou lu ñu fekkee mais lu ñu dégg la ki nga xamante ne mooy maam Abdou Aziz Sy Dabakh dañ doon da toog ñu koy wax li nga xamante ne moom mooy réalité moom du am dara loo xamante ne dina ko ñemee teggi parce que tamit euh, lu l'islam nangu la mais tamit été xamantene xel logique mais malheureusement tay euh, du a mais lolu Le ko président bu premier ministre wala ben autorité wala ben talibi enveloppe day di day di millions fa nek day ont koku dañuy am faiblesse ñu wax ko li nga pourtant responsabilité yaakaar naa ni oustaz bi nga xamante ne jóge na fi sànq muy kilifa bu am solo di mm-hmm. Souleymane ki nga invité euh, euh, dañuy faral di wax ne borom xam-xam yi ñoom ñoo wutu yonent yi kon tey borom xam-xam yi ñooy ñoom te ñoom ñoo yor mission bi nga xamante ne moom la yonent yi yoon kon ñoom ak yonent yi nii la kon lu tax ñoom tey xamuñu loolu te pourtant loo xamante ne la euh, lu nekk lu ñu xam la mais pourquoi ñoom ñu wàcc seen ànd te yaakaar naa dañ koy faral di wax ku wàcc sa ànd ànd boo dem fekk fa borom kon tey ñoom loolu ñu leen cëraloon ba nga xamante ne ñëpp ñoom lañu doon jox cër mais malheureusement day mel ni xamatuñu ko wala day mel ni tey am na noo xamante ne jaaye nañ ko seen ngor ba tey après ñoom euh, du ñu mun a tekki li nga xamante ne moom lañ tekki nga baal ma wolof day faral di wax euh, ku ëmb sa euh, ku ëmb sa sànqal nga ëmb sa kersa sa kersa ah. effectivement parce que tey am na yoo xamante ne bu ñu ko sekkee maag yow rek am na loo xamante ne di nga ko bëgg ci man doo ko tu a kon loolu lañ gis li nga xamante ne moom mooy société sénégalaise. ndeysaan euh, Lamine dafay wax ba dugg ci benn affaire boo xamante ne nii sama concerne man personnellement dama ko dégg rek si euh, kilifa gi nga xamante ne nii moom moo génn àddina jamono ji ñu génn nii muy maam euh, Abdoul Aziz Al Amin ah. donc di ñaan yàlla taas ñu ci euh, barkeem yokk ay leeram alors euh, dendale ko wax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yóbbu ko ci àddina firdawsi yi ma dégg ci biir ñu ne euh, dafa am ku xamante woon ak benn kilifa chef d'état à l'occurrence kii Moustapha Niass nee na bi mu ñëwee papaam ne ko dama lay présenté tey gan gu am solo nee na bi mu ko présente mu nekk ndax bëgg nga mu ne ah ku am solo kañ bëgg naa ko présenté nee na bi mu ko présenté waaj nee na moom mu am yëkkati lu mu jox waaj yi nee na waa ji chèque bi mu ko jox nee na durant un mois xam nga durant trois mois donc moom la doon defee ay dépenses mu nekk ay erreurs yoo xamante ne nii souvent dañ ñuy wax nañu diw moo nekk fii moom moo mu defal mais nag thème tey nekkul si affaire sëriñ sax du woon loolu mais même taalibe bi ak euh, sëriñam même élève bi ak professeur am même menuisier bi ak ki muy jàngal métier même même même même papa bi ak doomam même mag ak rakk lan moo xew waaye nag yooyu yëpp. maa ngi leen koy wax ku ko teggi musiba dal la parce que gis nañ musiba bi ñu dal actuellement mënatu ñu def benn jéego bu jëm si kanam est ce que yi ñu xam tey daf ñoo lor mohamed samb Ousmane maa ngay jaajëfal di nuyu suñu mbokku intern di Sénégal TV. Hmm, di rafetlu invitation bi ñu xam ci plateau bi di nuyu sama mbokku Lamine Sane. di ko jaajëfa ci li mu développé leer na. Ousmane doo nekk jamono boo xam ne dafa doy waar parce que man lu mu mën wax mooy doy la doy dafa baax. doomu aadama nga am cent franc xam ne yàlla cent franc yi la ma jox naa yem ci samay cent franc ba ñu xool kenn lu muy am. Mhm. parce que bu yàgg ba dañoo nekkoon ne Sénégal dafa nekk dëkku naataange dëkk boo xam ne jàmm am na fi dëkk boo xamante ne xewlu yàlla bi nekk na parce que am na ñoo xam ne ñu baax ba ba léegi ñu wax ne ñu baax mhm. ku ne maam Abdou rek ko fierté la. Mhm. fierté ci àdduna bi. parce que maam Abdou dafa nekk koo xamante ne daf ñu jàng lu bari. gis nañu si lu ba tett nañu si lu bari ko yàlla yokk Euh, doon maam yi du njëkk bu doon nekkoon ne ñoo xamante ne doon defar jël éducation bu leer nañ teg ko mais malheureusement le monde d'aujourd'hui surtout ñun génération ñoo jël loolu fàtte ko wala danaa la xaw a kii tuuti quoi parce que ñu danoo jël euh, lu nasaraan mhm. lu bari mhm. jël ci français bi jël ci japonais bi comme que da ngaa bëgg japon moom laay sagoo de waaw non <laughs> ñu jël loolu yëpp ñu jël di ko di ko consommer consommer consommer dem ba dafa yàq su yàq suñu bëri si ñun yàq suñuy gis-gis. Uh-huh. suñuy bëgg-bëgg. copie baaxul. Uh-huh. ñun tey jii suñu jëloon tey jii suñuy valeur yoo nga xamante ni tey jii nii suñu maam yi nampataloon ñu ko tey ñu ko yooyu tey jii sëñ Ousmane euh, suñ ko defoon fii Sénégal tey jii ñu dund ko du am problème. Mm-hmm. da ngay jël may du doon jël ndaal mm-hmm. ñëpp di ci naan ci kër gi. daal jam si yàlla daal. ak pot bi ñëpp di ci naan. waaw ci naan te ndaa boobu noonu ñun dañoo am suñu coutume. daa am yoo xamante ne bii dafa bokk ci ñun. mooy maanaam ñaan mag bi day jël leen def ko ci ndaal li ndaal li ñëpp di ci naan te jii nga nekk sama doom baay tey lu ma lay soo amul day man man maa amul daf may métti te loolu amul bi da ngay nekk nit ki bokk ndey ak baay tey jii nii su amee tey jii nii benn yi ngay am ci moom te pourtant yéen bokk ndey ak baay kon ñàkk dallu lu boobu noonu am na ci man lu may mën a jéem a jëlaat en arrière. Mhm. jéem a xoolaat suñu taxawin. Mhm. jéem a xoolaat defaraat suñu bopp xam ne ñun ay doomu aadama la mhm. ay nit lañ ay julit lañ am na suñuy valeur ñu bàyyi lu baaxul luy coppi di yàq suñu xol di yàq suñu gëm-gëm di ñu loo xam ne nekkul parce que tubaab bi ñu wax il est généreux dañ mais fiction bu ñu woon ñun Sénégalais ñu koy dund ñun war a bàyyi lu ñuy doylu am na solo loolu am na lu am solo lu mu wax alors toujours copier mais jamais égalé donc euh, ki nga xamante ne ni euh, moom euh, Mohamed laal na réew moom mu nga xamante ne ni moom Japon ñu tënku ci ay charte yoo xamante ni ay charte yu wér la ay charte yu taxaw ay charte yu

waaw ci côté bi nga xamante ne moom la sama collègue euh, Mouhamed euh, Samb waxee ci kooku laay ñëwaat waaye tamit gën a delluwaat ci li nga xamante ne moom mooy suñu tew thème bi muy lan moo xew mm-hmm. euh, damay xaw a reculer delluwaat ci famille suñu maam yi seen dundin tey jii ñun ñi nga xamante ne ñoo nekk ci jamono walla ñoo toll ci suñu suñu génération daal bi dañoo am problème sérieux problème bi sérieux lañu am

kon côté boobu lu may gën a wax rek mooy gis nga kër dafay am ki nga xamante ne moom mooy borom kër gi maanaam mooy euh, euh, mooy yor kàddu gi moom si boppam dafa war a am nu mel ñeneen ñi cëral ko boo ko defee société bi doon loo xamante ne day doon société bu euh, am solo ci biir kër gi tamit day neex mais malheureusement suñu jamono tey du ma jël toor bi yëpp jox ko jigéen yi wala jox ko góor ñi mais damay jël affaire bi def ko cinquante cinquante parce que kër bu ñu ko waxee rek yaakaar naa góor jigéen la muy jabar di jëkkër après ñeneen ñi soog a ñëw parce que ñoom ñoo ñi nga xamante ne mooy borom kër bu ñu ne borom kër gi ku góor ki la ñuy jëkk a wax bu ñu bu fa nekkul ñu soog indi ku jigéen ki kon tey euh, ñoom ñëpp mu doon seen fierté ñu jël ko tegee ko nel bu njëkk ba da ngay gis euh, li nga xamante ne mooy famille dañ doon béy di dundee yaakaar naa bu ñu béyee at bi balaa dellu si loolu ñu jotoon a béy dina doon loo xamante ne dina am côté boo xamante ne dinañ leen satisfait dañ si doon boole di yar ay jur euh, ngooñ bi extra ak dugub beeg yenn kii dina am foo xamante ne dina leen mën a dimbale léegi yenn yi ñuy jaay xëy na ay dépenses lay doon ay quelques besoins yi nga xamante ne dina leen jàppale léegi ba at bi dellu siwaat muy nawet bi dellu siwaat ñu tàmbalewaat beneen euh, kii boo xamante ne day doonaat lu am solo mais malheureusement tey ñun dañoo mel ni loolu yëpp dañ ko xaw a effacé am na ba tey ñeneen ñoo xamante ne ñoo ngi xaw a dellu def yenn vie effacé ko dem copier copier boobu ñu copier ñun pareeguñu ñun pareeguñu pour toppandoo France non Sénégal tolloogul foofu ñun pareeguñu pour toppandoo Chine Chine pays bu ma respecté la donte nag euh, du ay réewu julli ñu ngi koy mais ñoom seen éducation daf ma neex trop yaakaar naa xam nañ depuis deuxième guerre mondiale ak yu demee noonu fan la tolloon ak tey si nu mu développé extra yu demee noonu gëm seen bopp mais ñun tey tolloo bu ñu foofu bay jéem a roy ki nga xamante ne mooy mooy France kon il faut ñu defaraat euh, société bi defaraat bi nag euh, du lenn mooy euh, sànq sàmb danaan copier bi d' accord aussi man d' accord naa si copier mais gis nga nit boo nangoo ne raw na la si benn côté xoolal foofu mu la raw mu doon lu positif nga jël ko teg. mais li nga xamante ne lu négatif la amul ak sa culture euh, euh, jàngat ko ko xam nga ne lii du dem ak société sénégalaise bi nga jël effacé teg fële parce que tey am na dëkk yu ñu raw si lu bëri nañ xool loolu yu ñu raw ak loolu nga xamante ne ñoo koy développé ñu jël ko indi ko comparé ko ak suñu culture bu mënee dem ñu jël boole ko si nga xamante ne lépp day doon euh, def si. kon kon kon côté boobu xëy na def mun naa si développé mais xëy na day compliqué mais juste pour wax rek ne bañu ma ñu copier. mais nañ jël li nga xamante ne lu am solo la ñu ñëw boole ko ci suñu société bi. ndeysaan comme ni ma leen koy waxee saay si nag rek yéen a ngi seen émission taxaw seetlu nee leen taxaw seetlu tem lay waxtaane te tem bi nag kàngam yi ñoom ñoo koy jël euh, tasaare ko euh, dugg na ci biir kër yi effectivement du man maay waxa ah, ñoom ñooy wax après man ma jël si li ñu wax après ma développé. kër yi léegi dëgg la góor ñi ak jigéen ñi ñoom ñoo fa nekk ñoom ñoo war a jiite kër gi waaye kilifa nag su demee ba si kër amatu fa kër googu noonu dafay nekk si li nga xamante ne mooy crise d'autorité crise bu doy waar muy li nga xamante ne ni seetu nañ ko sànq tamit Souleymane wax na ko mooy wàllu spiritualité mu am koo xamante ne ni waxoon naa leen ko waxati ko ndeysaan dafa nekk si kër moom yow michu ngay lekk mais moom ngëmam mayu ko sax mu lekk michu bu mu xamul fan la jóge mu yem si ndoxam naan boole ko gerte caxam parce que xam na ni mu amee xaalisam moom daal toujours dafay préféré aman am am aminam di lew waaye ñi mu séqal est-ce que loolu doy na waxoon naa leen ko fi si benn émission mu jar ba ñu daw xëcc ñiy yuuxu jooy gauche jooy droite wax te ñooñu ñooy am si dëgg parce que société boobu noonu na ñuy dund ñoom ñëpp ñoo bokk na ñuy dund ñoo bokk na ñuy gisee kooku ne cunding moom des ak spiritualité am topp yàlla topp yeneen taam dembe ba ni ku wet ci yoon woowu mu nek noonu parce que lamu bëgg ak li nit ñi bëgg dootul doon benn ma génne foofu dem ci bu njëkkoon borom kër comme ni nga ko waxee lu néew la doon am bàjjen nekk fa yumpaañ nekk fa parce que boobu si nit ñi lañ doon investir doon ñu investir si banque yi waaye léegi si banque yi la ñuy investir boo jëlee defar sama mag yi liggéey defar ki si nag ainsi de suite ainsi de suite borom kër gi 45 ans wala 50 ans rek mu dem retraite di di di di percevoir si ku nekk. waaye tey bu fekkente ne loo am dugal ko si banque bi ah ñooñu tamit ñu am dugal ko seen banque ku nekk régler problème bu bokk boppam si benn kër kii xaaj fii xaaj fi njël di kii togg ginaaram dugal si néegam du may papam du may yaayam lekk lu neex bàyyi ay waajuram ci benn kër loolu am na Mouhamed Samb waaw loolu am na sànq fànn dafa développé lu am solo ma bëgg tuuti mu am may ma nopp quoi xëy na dafa ma xasee dafa xaw a dégg tuuti man su ma nee copier man lu négatif lu ñu copier parce que tubaab yi dañoo nekk ñu am bañ système boo xam dañu lay woon loo xam ne dunduñu ko man fan laay waxee parce que tamit nga jël ci kii jël ci kii jël ci jël ci bu yàgg yow looy dese te pourtant am nga ay propre am na la nga xamante yow tey jii nii yow yaa war a raw ci monde bi parce que sa éducation dafa dëgër sa valeur dëgër nga am culture bu dëgër bu saf-sàpp bu dëgër tey ji Afrique tey jii nii nan nan ne ku dese culture fii Afrique Afrique ngay ñëw jeex sa culture mm-hmm. soo xoolee tey jii nii moom ba may mm-hmm. rek mm-hmm. tey musique africain moy ban mhm. moo deug dëkk mhm. ñëpp fu mu toll ni man ko mhm. do bobu lay waxe bañuma ñu copier mais négatif positivement lu positif ñu ko jël di ko consommer trop consommer baax consommer bari baax te ñun euh, Sénégal euh, Afrique laa wax dama tan di consommer consommer ko du xol ñu consommer lan la li nga wax am am solo c'est-à-dire que Ousmane tey so soo le monde bi tay ñu mu demee ak Sénégal nu mu demee won tey jii Sénégal nekkoon dëkk boo xamante ne benn lan woon mhm. wax ju yàgg la Sénégal benn kenn mën ko xar wax ju yàgg la mhm. wax jooju dafa dëggu ba dëgg nii mhm. mais c'est-à-dire tey jii nii crise des valeurs tey jii mooñ jàpp ak ñàkk partage da nga gis koo xam ne tey ji ko aw ab lana la wërsëgu ndey xam nga comment ko nan na koy waxati waaye na ku am ñu ne euh, ndey ma ko liggéey soo amee ñu ne ndey ko liggéey kon déjà sama genre yi am ñoo amul seen ndey liggéey yàlla na ci yàlla jégal ci mhm. kaddu gi mhm. mais sa système Sénégal bu ñu utiliser mhm. te pourtant tey jii waroon na mën di partage ñu yéenante jàmm tey jii dëkk bi tey day neex day naataange mais tey jii suñu bëggee tey comme nga ne banque yi tey jii Sénégal yi ñëpp banque nañ investir te bu yàgg ci nit lañ doon investir tey jii ñu bëri bëri fii seen ñi yaay ñoo leen yar te tey ñaan leen di téye comme koo comprendre nga baax. Mm-hmm. balaa nga xam ne suñu système éducatif bu baax la. Mm-hmm. yar la tette la ba da lay gënal ak sa doomam. Mm-hmm. kon mu wóor la contexte ji suñu valeurs yi nii nii nu mu demee nii tey dëkk bi nu mu demee nii si ñun la. ndeysaan ñun ñoo war a xoolaat suñu toogaay. ñun ñoo war a xoolaat suñu toogaay mu dugg nag si li nga xamante ne ni moom mooy wàllu euh, humanisme diggante ndijaay ak jarbaatam mu def si moom la mu ca war a def ba mu mat sëkk mu door ko bàyyi ma dugg nag ci ki nga xamante ne ni mooy diggante. élève bi ak professeur légui ken kenn dara gars amatuñu jot pour xaar patience ils sont très impatients dañuy ñew xol ben affaire taf taf taf ñu dem euh, amu gisumako dem nekulo ci li feulé ngi mois après fa dem nekkat feulé cinq mois ainsi de suite ainsi de suite bu ñuy ben affaire mu daanu kaw fatuñu liñ si waat euh, bâtiment bi bu ñu koy def dal bi mu daanu si kaw nit ñi ñu ne dee na parce que xaarul métier mi waroon am livrer la sa sa kii conduite bonne conduite comme ni ko kii bi doon defee ah euh, sa téere bi wala kii bi jàngal la ba pare am na koy waxee sa ñaanal la beral la sa daara est-ce que nous sommes maudits c'est pas nous sommes maudits est-ce qu'on n'est pas maudits parce que fi mu nekk nii si kaw mu ngi baax si suuf mu ngi baax si gauche bi mu ngi baax si ndeyjoor bi mu ngi baax dafa metti dafa dëgër dañu mel ni ko umu affaire bi doxatul rang bi doxul affaire dañu mel ni dañu umu dañoo tëju dañu affaire bi dafa dafa dafa dafa lëndëm ko la moo xew what happened euh, mu nekkaat lu am solo loo xamante ne day impatient nekkul si ñun gis nga dañoo am noo xamante ne dañ ko day mel ni dañoo ñëw këf suñu xel wala ñëw rek imposer ñu yenn yi ne lii moo war a nekk gis nga dañuy yàkkamti suñu àdduna de trop te yaakaar naa ne gis nga mbir boo fa nekkee euh, bul yàkkamti parce que mbirum wërsëg ak fi ngay mujjee ëllëg lu la jomb la yàlla rek ak a xam mais fi nga nekk toll ci lu métti métti bàyyil ba nga xamante ni ki la yor pare na ci yow bu paree ci yow rek yaakaar naa boo génnee tamit ku la gis tamit dana la respecté dana respecté ki nga xamante ne moo la yoroon mais nag euh, dañoo nekk ay société boo xamante ne tey masalan da ngay nekk si benn famille bu xaw a peuve peut être ak tamit yoo xamante ne say maman défense certain maman say papa wala sa famille bi ñoo la koy dégg depuis combien de temps yaa ngi diw ah yaa ngi nii diw lu mën mën nga ko sa wër sa kërt kërt léegi yooyu après lu mel ni ha? lu xattal lah, nga gis sa bopp nga jël engagement ñëw jaamut ñëw ko bu mbax def ni nga jël engagement daayal nit laal mu tëdd si moog jabaram di noble ñoom ñaar ñu pëtëx si suuf nga jël engagement wu tabax bâtiment defar ko waa ji dox si escalier yi di mbëkku daanu hmm. nga jël engagement defar gal.

sax maa ngi maa ngi si yow oustaz ak euh, soxna Mariam. Ah. ngeen wax ci côté spiritualité quoi. waaw ah. gis nga doomu aadama war nga gis ki nga doon ak looy doon ak foo jëm c'est très important waroo tëjëx tëjëx si doomu aadama tey dafa baax dal déglu am patience xam na man suma objectif lii la lii laa bëgg a dem te lii laa bëgg a mais Sénégal loolu a fi li nga wax sànq ñaw ma maq. ñaw yàq yàq yëre jàmbur. bii mbaq ko non mbaq macha yow moom borom kii nga <laughs> macha allah c'est-à-dire il faut que ñun tamit euh, impatience bi tamit ñu bàyyi kii impatience euh, patience dafa baax doom doomu doomu aadama yow si boppam surtout soo nekkee réew boo xam ne comme Sénégal bul nekk nii tey jii yaa ngi posé lu xew lu xew ñëpp la lu xew dëgg xol yi xat kenn amatul na ci kenn da ngay nekk ci bis ñun ñuy dukkatu bis chaque jour xeex. ñu ñu nekk si jàkk yi nag démb rek gis naa benn waaye jógal li xew mooy dafa julli tisbaar ba pare eh, mbooloo mi ñëw ñu war a julli ndawaat tisbaar di nga julliwaat tisbaar duñ julliwaat tisbaar rek gars yi bëgg a jox songonte xol yu xat xol yi ñoo xat xol yi yi ñoo xat lool loolu tamit tàggat la parce que gis nga foofu ñu jéem a xam idée de partage su ma amee sédd la ci bu yàgg bu maam yi loolu doon dundee man dama euh, naw sunu maam yi ñu doon dund mm-hmm. nga dund ba nga xamante ne suñ ko dundul du ñee kenn duñ sox ñu jéggaani waaye. Mm-hmm. wallaahi bilaay sox ñu jéggaani. donc euh, am am nañ ko euh, mooy la ñuy am habitude du wax rek képp ku nga xamante ne nii wàcce nga sa ànd ànd boo dem fekk fa borom ma fàttali woon leen ne ànd. Mm-hmm. du ànd boobu di boy te tàng parce que boo si toogee daf lay lakk.

Euh, imposé bu ñu la koy def rek ça veut ko ba léegi yow yaa ngi si côté jaam mais jàng ji di mhm. nga jàng daf lay may yow nga xam sa bopp te am na loo xam ne bu ñu la ko yareewul sax boo amee chance jàng ji après yow di nga mën a yaral sa bopp te loolu c'est possible mhm. di nga xam nan ngay euh, tegee sa vie gis nga am na loo xamante ne boo ko def ba dugg si responsabilité bi yow yaa koy assumer il faut nga assumer say responsabilité kon jeunesse bi dem leen jàng ji découvrir leen loo leen bëgg nag si àdduna bi partout na ngeen wër na ngeen dem gëstu ji ñëpp na ngeen toog ak borom xam-xam yi na ngeen toog ak dof yi na ngeen toog ak ñi nga xam ne tekkiwuñu dara mais après tamit am na loo xamante ne moom ngeen siy tiire yaakaar naa loolu ngeen siy tiire mooy l'essentiel bi kon il faut ngeen gën a conscient nañ jeunesse bi gën a conscient toujours foofu laay gën a lancer sama message euh, bu ñu ko defee rek après tamit yaakaar naa dinañ mën a tourner waat affaire bi ba amaat benn vie boo xamante ne day doon vie bu néew. ndeysaan Mohamed. waaw maa lay ziar nuyu suñu mbokk internet Sénégal TV di wax dafa lu am solo ci sa man lu may indi mooy dara yërmande na gars yi am yëg-yëg ci doomu aadama ku amut na jàppale ku ku am na jàpp ko amut ñun ñu xam ne ñun ñoo bokk ndey baay ñun ñëpp ci ba aadama kaw lañ leen jógee am na ci solo lool bu nga Sénégal war a nekk dëkk bu gën a neex ci monde bi dëkk que jàmm am na fi mais tamit jàmm xam-xam da ci war a nekk. nañ uti xam-xam surtout maa ñun ndaw yi à chaque fois damay su suñu émission yi dama naan ndaw yi. Mm-hmm. parce que ndaw mooy socle mooy base ndaw moom la moom la yàlla may doole. Mm-hmm. may ko xel muy xalaat kon ndaw boobu su jàngee ba tey ci xam-xamam noonu ndaw boobu war na mën a lijjanti yow. ndeysaan euh, saa yi su ma leen dégloo rek euh, sama yaram day daw sama xel tamit dem si sama rakk ya nga xamante ne ni euh, ndeysaan. ñu ngi may xoolee ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo leen tete woon omot leen tegoon leen si yoon muy seen wayjur ya ba ñu génnee àdduna benn tey jii nii mën la ñu jël teg ma si place wayjur boobu deux ans maa ngi Sénégal ba may wàcc aéroport Korok cent quatre-vingt-dix mille francs laa wàccee euh, si aéroport bi ak benn iPhone buy jar sept cent mille si jamono jooju noonu mu réer si même instant bi depuis deux ans yooyu lu ma lekk lu ma naan lu ma sol ñoom la souffrance dunduma ko benn yoon benn mu la plupart du temps dañuy jógee bitim réew ñu di leen noot di leen sonal di leen de ñenn nag ñi nga xamante ni ñoom laa gënoon ma ñaar 33 millions 405 mille francs compte bancaire bu am carte ma di def lu la neex fu la neex nga dugg jox la xaalis bu bëri nga daw yaay booy loolu ñaw na waaye nag maa ngi sant yàlla alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin ñun ba ñu ma mënee dañu doon defal suñuy rakk kon tey suñu rakk toog nañu fi nga xamante ne nii foofu lañu waroon a toog lan moo xew lan moo tax nit ñi di daw bay daanu ñeneen ñooy tontu si laaj yooyu noonu. jóg jóg jóg jóg Tahoe Taco Tembe, Tahoe Setlo.